waaw ñu ngi maa ngi leen di fay. tur bi nan la. man maa ngi tudd Matar Diané. Matar Diané Matar Diané ba coach nga. man uh, coach la. man yow si coach yi nga ko. man assistant coach. waaw tey dañu uh, ñëw si stade bi li uh, xamante ne man moo amee xam ni ñu joué match boo xamante ne maa ngi wala métti noo gisee tout d'abord accueil yi. Ah, waaw ñu ngi sant yàlla parce que invitation bi lu important la. Mm-hmm. équipe yi bari nañ jàng mais. ñu taale ñu invité ñu mu nekk fête mu nekk mbégte bu mag boo gisee ñu suñu joueurs yi dañ leen jëlee ku ne boole leen dafay liggéey ne nag ñoom ñu mën a def ñu ñu préparé bu baax pour pour seen match yow ban genre match ngeen def ban genre parce que équipe bi ngeen di dajale équipe bu baax équipe bu xamante ne sànq formation mën nañu def yàgg nañu métier bi te yow coach hello hello euh, followers football TV YouTube TikTok euh, Instagram di leen xamal benn reportage bu xamante ne amal naa man ak euh, Zeyna donc. gars car kaar leen ko c'est sur Senfootball TV bu leen ci dara rëcc parce que c'est très important. actuellement ñoo ngi fan nii Zeyna. actuellement ñu ngi centre bu FIFA bu Jules François Bocandé bu nekk Toubab Dialaw. Mhm. voilà donc war nañu am benn final bu xamante ne war na fi am. gën leen ñaax ne Zeyna def na comeback am donc euh, am na benn mercato bu ñu def euh, donc euh, c' intéressant 13 minutes donc bu leen ko ku ko seeraanul dama seeraan ko donc ah. ñuy remercier waa Flow sur TikTok sur Insta et surtout sur YouTube One Love donc xaar leen reportage bientôt c'est hyper cool donc football Sénégal bi gëstu nañ ko bu baax baax muy football local bi donc mm-hmm. restez connectés sur Football TV jaay def One Love